nekk ci biir réew mi jokkal ak ñoom ñu fekk la fa defal la liggéey bu mucc ayib dinañ gaaw te yéwén ci lool ci ay prix yu xéewale nag seen ay numéro téléphone 78 262 93 61 78 262 93 61 wala ngeen def 76 024 13 45 76 024 13 45 ak 18 safar déco liggéey bu baax ci ñoom rek la fekk baax. ñu door revue de presse bi dooree ko stade yéene kaay Liverpool bi yaaxe yàlla fësal ca xët wu njëkk wa. tey jii la bu 19h jotee match aller demi-finale Ligue des champions waaye kat match boobee dina neex tey jii li ko waral moo di kat stade nee na Villarreal kat ay punkal lay bett di leen duma ndax loolee mu nekkee nag ndax day wéy tey jii loolee samp naa ko ab laaj ndax kat ñoom ñoo génne yuufe ci po mi génne waa ba Bayern de Munich ci po mi waaye kay tàggat Liverpool Jürgen Klopp ma ngay wax li mu xam xamle moo di nag Villarreal mii ñaari ponkal yi mu génne ci po mi li ma jàpp ne moo ko waral moo di ñaar ñooñu dañ ko xeeboon te man xeebuma ko équipe bu mag lay jàkkaar lool ku ñëw ba demi-finale Ligue des Champions nekkatoo club bu ndaw Unai Emery may tàggat ñii di waa Villarreal moom li mu xamle moo di Liverpool nag jamono jii day lakke waaye li ma bëgg moo di ñëw fekk ko mu mat sëkk ma door ko delluwaat ca Espagne ñu xam ne man nekkuma club bu ndaw kon match boobee tey jii dina tàng jër ci diggante Villarreal bu Boulaye ja ak Liverpool bu Sadio Mané ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futurs Médias fekk fa record moom it choc bi ñëpp di xaar tey jii la fësal ca xët wu njëkk wa diggante Liverpool ak Villarreal match boobee tey jii dina tàng jër ndax ñaari club yi jamono jii ñi ngi ci forme waaye maa ngi samp foofu ab laaj ñaari doomu Sénégal yi kan ngeen jàpp ne tey jii mooy jël ndam li ci ñoom ñaar waaye Sénégal kat match amical yi mu doon wër dem ca Amérique du Sud amoon réew yu mu tànnoon ngir football ak ñoom ñii di waa Colombie bokkoon nañu ca waaye kolombikat gantal na loolu nee na moom mënul football match amical ak Sénégal doomu Sénégal bi tamit di Cher Ndour nekk ca Benfica ca équipe bee ba lay futbal waaye nag papaam di Mamadou Ndour moo nekk ci journal bi di wax li mu xamle nag moo di wax naa ak fédération bu Sénégal ne leen bàyyi leen xel sama doom ndax ku football am yaakaar ci moom la te bu ngeen yéexee mën naa dem feneen ci fàttali doom moom mii doomu Sénégal la ak Italie moo tax wax waxkat ne waa Sénégal nañu bàyyi xel gone gi rawatina fédération bi. ñu jógee Sénégal wutali France fekk fa l'équipe match bi doon dox ci diggante Man City ak Real de Madrid la fësal ca xët njëkk wa match bu dof la ñu gis démb bu ñii di waa City ñëw mu ne woon Real de Madrid ñaari bal ci dara Real ñëw dugal benn ñu miita ak 2-1 waaye ba ñu ñëwee ca deuxième mi-temps ba siti dafa dugal troisième but waaye taxul waa Real de Madrid bàyyi ñu dugalaat beneen but muy trois 2 waaye tamit ñii di waa City ñëwaat dugal ñeenteelu but bu rafet ba léegi Real de Madrid jàpp rek ne du bàyyi ba am ñetti but match ba nag 4 3 la mujj jeexe waaye nag journal bi li mu xamle moo di Real de Madrid ba léegi dese na ko wërsëgu qualifié ndax ca match retour ba ñoom ñooy dalal waa mën sa Manchester City ñu jógee France wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport Foden ak Benzema la fësal ca xët wu njëkk wa démb nag jongante ba neexoon na lool onze minutes la ñu football Manchester City mëne Real de Madrid ñaari bal ci dara am nag ay occasion yu dul jeex adduna gépp rawatina Manchester googee jàpp ne tey jii la Real de Madrid di dee waaye kat Real ak expérience am ba match ba di jeex ñii di waa City benn bit képp la ñu ko rawee match boobee nag ba mu jeexee waa Manchester City dañoo réccu ndax kat démb li ñu futbal ak li ñu am ci ay occasion bu ñu dugaloon lépp moom dañuy rey Real rek ca match aller ba loolee moo tax kat journal bi ne leen bàyyi ngeen seen loxo de match retour ba yéenay fekki Real de Madrid te lu ne mën naa xew ni ngeen ko jekkoo démb da ngeen ko waroon rey rek mu dee journal bi tamit ñëw na ci match bi war a jii di dox ci diggante Liverpool ak Villarreal waaye journal bi samp na foofu ab laaj ñii di waa Villarreal ñëwuñu ngir jëlal ñii di waa Barcelone seen revanche ndax kat demi-finale bi nga xam ne club bu espagnol ak ñii di waa Liverpool tase nañu ko mooy bi doon dox ci Liverpool ak Barcelone match aller ba Barcelone moo ko dalal dóor ko ñetti bal ci dara retour ba Liverpool dalal ko dóor ko ñeenti bal ci dara ndax tey ji est-ce que du ñii di waa Villarreal loolu la ñëw ngir fayul ko Barcelone. ñuy jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay yëfu jinne de moo am ba match ba jeex. ci diggante Real Madrid ak Manchester City match ba neex na bëri na ay bit waaye kat Real kat ñëpp jàppoon nañu ne day dee waaye ba muy ñibbi ca Espagne ma ngay dund lépp nag ca Santiago Bernabéu lay xewee waaye waa Real nañu sant seen ñaari gone yii muy Karim Benzema ak Vinicius ndax ñoo leen ci génneeti ñoom ñaar ñëpp dugal nañ waaye Karim Benzema kenn du moom démb dafa doublé duble boobu sax tax na mu nekk meilleur buteur ci Ligue des Champions waaye moom Karim wax na li mu xamle moo di kat ñun bu ñu demee ca Santiago Bernabéu yu ñu def yëfu jinne ba qualifié ca final ba ñu jógee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay liggéey bu mujj bi de Bernabéu lañ koy defee te liggéey bu rëy nag mooy xaar waa Santiago Bernabéu li ko waral moo di kat Real de Madrid démb ca Manchester City tuutee tee rek lambay ñaaw waaye dëgërlu na ni journal bi wax sax moo di dekki na ñetti yoon ndax kat jiitu nañu ko ñetti yoon ñaari bit waaye ba ca cëppaandaw ga kat benn bit képp lañu ko jiitoo kon match retour ba ci la lépp di xew Karim Benzema nag dafa doublé benn waaye ba mu noppee ca loolee lépp nag wax na ak supporters yi ne leen club bi nag lu mu leen doon soxla benn tey jii soxla na leen fukk ak juróom-ñaar ndax yéen ñu mën a jàppale ca mat retour ba bu mercredi yéen ñëpp dañoo bëgg ngeen génne jàppale ñu ñu def yëfu jinne ñii di waa Villarreal it ñoo ngi ci journal bi lim leen xamal nag moo di dernier virage bi daal ca Anfield la ginnaaw bi ngeen defee jaloore génne Juve génne Bayern de Munich tey jii nag li ñu bëgg ñoom waa Villarreal moo di génne Liverpool ci po mi ba noppi dem ca final ba mu nekk seen final bu njëkk ci Ligue des Champions kii di Luis Suarez it mi ngi ci journal bi moom nag février la ko ñii di waa Atlético de Madrid waxoon ne ko kat yow dañoo bëgg nga yokk sa contrat waaye boobu ba léegi doomu Uruguay bi tontul ci loolee kon li journal bi jàpp moo di bu saison bi jeexee day jugee ca Atlético de Madrid ñii di waa Barcelone nag ña ngay wutali AC Milan seen capitaine bi di Romagnoli la ñu bëgg a dem naxtaan ko bu saison bi bi jeexee ñu yóbbu ko ca Barcelone moom ab défenseur la saison bii ñu nekk bu jeexee ci la contrat am di jeex tàkk moo tax kat Barcelone ñoo ngi koy bàyyi xel ngir indi ko foofe muy doxal. ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa Esport Real de Madrid génn na ci ak bakkan de démb ba muy jàkkaarloog Man City ñëpp jàppoon nañu ne kat match boobee bu jeexee Real de Madrid day dee ndax gone gorje Guardiola yi kat matt bu baax la ñu def xoj waa Real de Madrid waaye kat Real sant seen ñaari gone yii génne ca match boobee kon nag lépp ma ngay xewee ca match retour ba kii di Araujo di doomu Uruguay nekk ca Barcelone moom yokk na contrat am ba waaye contrat ba nag close ba seer na lool ndax un milliard d'euro la ca waa Barcelone def kon nag gone gii kat ku ko bëgg te fekkul mu neex Barcelone doo ko mën a jënd ndax un milliard moom kenn du ko def ci zoo ñu jugee esport jël Mundo Deportivo moom it ci match démb bi la ñëw rek Real de Madrid nag démb gàcce la naroon am ca Angleterre waaye kat mujj wutewul kon match retour ba ci la lépp di leer ñu jugee Espagne wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport waa Inter la fësal ca xët wu njëkk wa seen match bi tey jii lañ koy football ak Bologna bu Ibrahima mbay match boobee 18h15 lay door waaye nag kii di insa gi ma leen di tàggat tey jii ngoonam la ndax ñaar mën na koo fekk ca loole su amee ndam mooy nekk ci première place ba rawee AC Milan benn poñ kon li ci des lépp su gañee mën na jël série A bi te tamit kat jubóo na ak ñii di waa Inter ngir xaatim contrat ba 2026 kon nag tey jii ngoonu insa gi la waaye kat AC Milan googee Bahreïn bëgg daanaka jënd nañ ko te vendredi kat boo moytuwul dinañu signer premier contrat bi jël club boobee ci Elliott Elliott moom moomoon a Milan kon nag waa Bahreïn kat waxtaan waxtaan ba ña ngi koy baral te daanaka jubo am na vendredi daal premier contrat bi mën nañu koo signé kii di Acer bi nekk défenseur ca Lazio de Rome bu Ciro Immobile nag ma ngay wax ñoom keroog bi ñuy jàkkaarloo ak AC Milan moom dafa def ay njuumte yu bari ba loole amee nag supporters yi topp ko ne ko yaa tax ñii di waa AC Milan gagné ñu waaye tey jii nag dafa fippu ne leen basta doy na man ci club bi amul lu ma fi defut may naa leen fi ay victoire kon njuumte yooyee mënul ñàkk wax ji na doy sëkk ñu fekk fa la Gazzetta dello Sport Inzaghi nag jël na moto bi ànd ak Nicolo Barella la ñu bëgg moo di romb waa ñu féetee seen ginnaaw tey jii bu ñuy jàkkaarloo ak Bologna bu Ibrahima Mbaye bu ñu ca amee ndam rek jël pee ci Serie A ba rawee AC benn poñ kon match boobee tey dina tàng jër waaye ca attaque ba nag ñaar ñii la surnaal bi wax na ñoo fay départ Edin Dzeko ak Lautaro Martinez waaye ca jamono joojee nag am na beneen match retard bu fay am ci diggante Atalanta Bergame ak ñii di waa Torino kon tey jii Italie am am na ñaari match yu saf sap jënd googee ñu leen doon wax ca Corriere dello Sport it Gazzetta dello Sport dëggal na ko moom li mu xamle nag moo di diggante ajjuma ak altine lépp mën naa leer ñii di waa Bahreïn nag la ñu nam ma jëndee club boobee mi ngi toll ci un milliard d'euros quatre-vingts millions loolee la ñu nam ma def ca club ba ngir ñu jox leen ko waaye suñ leen ko joxee ba noppi nag li ñu bëgg moo di def mercato bu baax kii di Beraldi nekk ca sa solo moom dañ koo bëgg indi waaye Mahrez ma ca sa City moo tee ne la waa Bahrain la ñu bëgg moo di bu ñu jëndee club boobee dem ca mën Manchester City jënd ko indi ko foofee muy doxal gaa ñi yëf yi foofu la buuree ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp rawatina sunu sponsor bii di 18 Safari Déco moo leen doon may revue de presse bi ba ci kanam ak beneen vidéo incha allah dal leen ak jàmm ci 18 safar déco di ñu xew ci jamono taman lool la ñuy liggéey lépp lu ngeen bëgg ci wàllum plâtre peinture décoration amun ci morom seen seran ba di xaadim ñu ñëw ak seen nouveau modèle yu yànj yi nga ne yow ban modèle moo lay daaneel ak foo mën a nekk ci biir réew mi jokkal ak ñoom ñu fekk la fa defal la liggéey bu mucc ayib dinañ gaaw te yéwén ci lool ci ay prix yu xéewale nag seen ay numéro téléphone 78 262 93 61 78 262 93 61 200 wala ngeen def 76 024 13 45 76 024 13 45 ak 18 safar déco liggéey bu baax ci ñoom rek la fekk baax.